di aimé li nga xamante ne ni mooy live bi oh. dama bëgg ngeen abonné ci chaîne bi ndax am na ay émission yu bees yu waaj a am gars yi mbërgale ndax xam ngeen ne dañ koy reprendre xaadim moo koy def xaadim mii mooy def mbërgale oh, di seeti mbër yi ci seen kër mbaax xam nañ ni ngoonu lamb na ñëw maag yow ñoo koy def bay balla am na émission bu bees boo xamante ne duñu tàggu benn mbër ah? dañuy dem seen koñ non non duñu seeti mbër mi de waa koñ bi la ñuy seet si. waxtaan ak waa koñ bi. wax nañ ko en ku ko dama wax. dañ koy sàcc nañ ko sàcc loolu laa bëgg damaa bëgg ñu ko. damaa bëgg ñu ko. ndax ma créé waat na beneen émission boo xamante ni. Eh, eh, pour leneen la. ca ngor lay amee. Eh, bu ko wax bu ko wax bay bal la laay la laa wure ba dem na këng. waxi mag dem nañ dañ taal yi. lan lañ ko doon xaar ay weer. ko doon xaar ay weer. Ah. di ko xaar ay ay bés. Ah. di ko xaar ay fan. Ah. tey bi ñu xëyee. ci ay waxtu lañ ko doon xaar. waaw nañ ci. yegsi nañ ci bamba bis baa ngi. ndeysaan arbitre baa ngi ci digg géew. Oh. fi ñu toll mbokk yaa ngi ci ginnaaw. ndeysaan xarit yi ñu àndaloon uti gàllaaj. ñu ci ginnaaw. jigéen yi lañ doon toggal. ñu ci ginnaaw. xarit yi daan àndal di entraîné sax ñu ci ginnaaw. xam nga ñu àndal. coach bi toog ci seen arbitre bi sifle na mbokk yi bu laal ak pokalaa. la ilaha illallah. ndeysaan kii jiital ndeyjoor kii jiital càmmoñ kii ma ko fekkoon Pikine kii ma fekk ko Lamsaar moom Lamsaar moo ngem boolu zone li bu laay bilaay ndeysaan kii ne ma damay daw jàmbaar ndeysaan kii ne ko kii ne ma bu ñëwee fekk fi jàmbaar ndeysaan attention ñoom ñaar xeex bul laal Pokola bul laal dóor na ñaari kuy dal Pokola Pokola uti na bañ na xeex bañ na jàppante bi mi ngi xeex ak Pokola Pokola bul kaaw attention Pokola bul laal Pokola xeex nañu Pokola kaawoo wala bul laal. attention ñoom ñaar. bul laal daa jàpp taxaw la ilaha illallah. xamoon nañu day dee ndeysaan gars yi abonnez-vous. ndeysaan la télévision ñun seen mbégte rek mooy suñu yitte. ñaari xale yaa ngi ci géew bi Pokola bu laal bu na ko. bu laal dafa am ngemb. waaw am na ngemb ndengeñ. loxo ngi door ci suuf. mi dooree benn loxo. mi ngi dooree benn loxo. ndeysaan bu laal fi mu jàpp. ndeysaan image. laay dëgg la nous vous proposons des images en HD. ndeysaan fii rek la ambatation bu laal la ilaha illallah. loolu jeexalu ko loolu jeexalu ko ñoom ñaar fu ñu mujj Pokola am na fu mu la ilaha na. bu laal jàpp na Pokola jàpp na. bu laal jàpp na Pokola jàpp na. bu laal jàpp na Pokola jàpp na. la ilaha sama gaay ndeysaan gaay na yéeg na yéeg dama gaay dama bëgg mu yéeg na yéeg combat la combat bi mën ta yomb dama bëgg mu yéeg ndeysaan ndeysaan ndeysaan attention bu laal pokola ñoom ñaar fu jëm xar xar la xel la xale yaa ngi bëri xale yaa ngi bëri gis nga rotation bi pokola def ndeysaan eh. Eh. mais pokola bu la te max yow gis nga lii ah liñ bëri neex na lu neex ñoom ñaar ndeysaan xam nga ni lii mooy lii mooy lii mooy lii mooy combat. ah lii mooy combat xale. lii mooy ñaar xale lañ quoi te liggéey nañ. ñu liggéey nañ. ñu ngi doy waar. ndeysaan yaa ngi ci 8 virgule 4. dama ni Baye Balla dama bëgg mu yéeg gaay na gën a yéeg na gën a yéeg. ndeysaan fii la fii la xewee. arbitre sifflé war na ko. attention la bu laal sànni na ñoom ñaar xeex nañu. Pokola bu laal attention ñoom ñaar xeex nañu Pokola bu laal. Pokola bu dox na ci kawam dóor na dooraat na Pokola Abdoulaye daw na jël ko Pokola mbot wala ñoom ñaar fu ñuy mujj Pokola Abdoulaye la ilaha illallah arbitre bi nee na combat bi jeex na lu ko arbitre bi di wax bi nee Fallou arbitre bi nee na Pokola xale baa ngi nii Baye Balla Mbuub Fallaye Balde maamam dafa doon bëri dama ne la kii ah. moo ko doon ci ndayam ak ci baayam dafa doon bëri ah. bu jigéen bee a soxor bu góor bi te doomu bu jigéen a ko jur bilaay ndeysaan xale baa ngi Mamadou Mbaye yaa ma ne woon ku sama am tudd Albert da tuddu ñu tëjale Gilbert ah. ngay seere baar di naan beer kenn du ne da ngaa génn xeet xale baa ngi nii Baye Balla kii yay doomi As Mbaye As Mbaye ay baayam champion bu mag bi yàlla ko yàlla xare aljanna barki Pathé Baldé ko nijaayam mooy Jules Baldé Ama Baldé nijaayam xam nga sangam Sakam Baldé mooy sangam ak Babacar Baldé ñooy ay sangam ku jàppale mu doon ah, mbër xale bi waxoon la nañ ko bàyyi xel sànq na la mi ngi 100 pour cent ci combat bi ndeysaan ko gisee gis Ama a garaaw Pokola mii boo xoolee a donn dama ni la Ama Baldé la ah, moom la jël fini Pokola ndaanan la ndaanan la la ndaanaan bu mag a ngi nii Pokola xoolal lii xoolal lii dañoo laal fii daa jël coup daa jël coup Baye Balla suñu mbokk internautes yi ñoo ñu sagal non Baye oh, Balla kenn du internautes yi internautes yi ñoom ñun ñun ñoom la ñuy liggéeyal ñu ci 8,9 seen mbégte rek la ñuy la ñuy sàkku ah, remontada <laughs> seen mbégte rek la ñuy ah. def li nga mën ah. ku ne xam nga ku la mën yàlla ko du nangu Baye Balla dama ne la xoolal lii tey eh, eh Balla ma wax yooyu waay nañ génn ci loolu waay ci Pokola ak joxal ma teem ak si loo wax. waaw Modou. waaw Modou Modou saay mbot bi da koo da koo yootu da koo yootu waaw bu laal bu ajoot loxo góosam ci kaw rek. waaw saay mën na def kat app